فليحسن الى جاره كيب كو گم يالا اك بيسو بنچ نا رافتال جيم سي دكندوم ومن كان يؤمن بالله ويوم الاخر فليكرم ضيفه موني كيب كو گم يالا اك بيسو بنچ نا ترال گنم ومن كان يؤمن بالله ويوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ليسكت mu ne ku gëm yàlla ak bisu pénc na wax jàmm wala mu noppi waaye nga nekk ci koñ lu xew sa kër dëkkandoo nga wër siiwal mayoo sa dëkkandoo jàmm mayoo ko salaam ba pare nga naan jullil allahu akbar allahu akbar yi dul jeex te say dëkkandoo amuñ jàmm ci yow loolu moom yal nañ ci yàlla musal mbokk yi ñu gën góor góorlu ci suñu diine te xam ne diine Euh, dafa làmbook lépp li nga xam ni dañ koy dund lépp lu ñuy def ci suñu dundi rek diine wax nañu jàngal nañu ni ñu ko war a defee ak ni ñu ko war a toxalee euh, te bu ñu jaaree foofu rek euh, ba motale yooyu rek suñu diine ci lay door a mot waaye nag diine nekkul rek ci guddal sikkim rek téye kurus rek de yoo dem yoonu jàkka ja te sa làmmiñ bi doo ci génnee lu baax te sa dëkkandoo yi amuñu jàmm ci yow yaa ngi lor ci say dëkkandoo sa làmmiñ yaa ngi lor say dëkkandoo ci sa ci sa ci sa doole yal nañu yàlla musal ci loolu. kon mbokk yi mu ngi mel na euh, euh, liñ ñu mayoon ci waxtu egg na fu muy jeexee kon du ñu def lu dul ñu tàggatoo ak yéen di leen di sant di leen di gërëm euh, si topp bi ngeen ñu topp ci banlieue TV FM. ñi àndoon ci ak sunu mbokk techniciens yi ñoom Sissoko ak Bari ñoom ñoo nekk ci xarala bi jàppale ñu ci liggéey bi macha allah waaye tamit am na sunu ay soppe ak sunu ay xarit yi ñuy topp bitim réew eh, ñu tudd si ñu mel na ñoom eh, Umu Gisee ak ñoom Basir Diagne ak tamit sunu ay mbokk yi nekk fii ci biir réew bi eh, ak ñoom Gallo Yadd ca ca ca France ak sunu mbokk yi nekk fii ci biir réew mi ku mel na Adama Diop Podor ñoo ngi ñuy suivre bu baax a baax ak Ajuma euh, Diop euh, côté Ndiawdoun ak Thierno jàlloo ñoo ngi ñuy suivre bu baax a baax ak euh, mbokk yi xam ni ñoom ñëpp ñu ndeysaan dañ ñu bàyyi xel di ñuy topp ci banlieue TV FM kon loolu moo nekkoon sunu waxtaan tey ñoo ngi indi woon ci àqu dëkkandoo ak li nga xam ni moom lay xadis yi nga xam ni rot na ci ak waxtaane nga xam ni wax na ci lu bëre bëre kon bu ko defee rek ñu joxe dox daje ba beneen bi ñëw incha allah mu nekkoon seen mbokk ak seen xarit seen taalibe ahmed diko السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا محمد